wala Basiirou taxawal ni gëmër taxawal ni tournel nga jàkkaarloog lii jàkkaarloog lii nii maa lay bëgg. delloo bëggee. lépp jàmm lépp jàmm sant yàlla bu baax. ñu mënal tey sa teewaay fii ci open presse Ardo. waaw ginnaaw man sant yàlla julli seen sant suñu ñaari waajur Ardo suñu grand la rek te bu xewlee noonu la ñuy teewalee waaw kon bu xewlee dañ koy teewal rek waaw. xam nga adversaire bi mu dajal muy Liss Ndiago. non xam nañ ko xamul làmb nii rek mais kii leen gën a xam quoi waaw. xeex Ndiago du jël de. non ñun moom contrôlé wul waaw naqari woon yéen waa parcelle yéen a ko teg dafa mbër parcelle. mais kon day gën a tar waaw parce si pël bi la daal pël bi waaw. amul lenn loo ko si Liss Ndiago. non amul lenn lu ma koy xalaatal moom. waaw ñàkk la kon. xalaat perte la. Ah. waaw yàgg na. jàmm gën gën a am de. waaw doo xool <laughs> xanaa doo gis yow <laughs> waaw. mais yow foo toll. non man maa ngi fi ma nekkoon rek. si bu dee si ko ci yoonam. non loolu lépp garaawul quoi man moom mooy loolu maa ngi fi ma nekkoon rek. nekk waaw diri na yaa ngi toll nii combat la moom mu ne soxlawul la nga ne garaawul. waaw ah, dëgg la dëgg la loolu garaawul. <laughs> garaawul te mu ne la. waaw ah, du dara. damaa ñaari combat moom nee na soxlawul. déggoo bu man lamb laa fi nekkal maa sa samay entraînement waaw. xanaa ñu ma woo Tony. non du loolu sax man moom wax dëgg yàlla amul góor yàlla bu may xel ñaar moom. neuf combat la neuf victoire. rek. waaw te fii parcelle daan fi bookaa. non Talfa dafa mel ni ñi ma woo tóori ñu sawroo ci sax mbaju tóori quoi. non ndax sawroo quoi. bilaay man mbër yëpp nii laa mel si ñoom quoi. mais doone mii lamb réew mi nii ma lay wax tóori nga non c'est que cest à rek man la laa bu nekkal maa ngi déglu sama staff rek. mais nag tóori nag da nag tóori nag dalaa la parce que man moom ma sama bopp quoi waaw. arène nationale gis naa yaa ngi njëkkan njaga caam dëkkante ba taroon na de. non dëkkante wuñ quoi moom góor la doon dëkk. mais man dëkk ko man man su ma taxee ñëwul ay yow ñaga jaam nan la toll. waa luur la nga nit la moo la sut moo moo loo moo laar da ngay xaru de. gis nga ni mu toll noonu. su ma ko jàppoon. gaa <laughs> da ngay xaru góor a soog du la bàyyi ngay bëri ñaga jaam. yow yow doo xool moo tax. ñaga jaam yow faa nga toxoñu yow doo xippi. doomu doomu mbër la de. kii xanaa du xool yow. Pape Diop Bosor moo ko jur mooy bàyyam doomu mbër jàngale bëri la olof wax. loolu contrôlé wu ma loolu. man su ma ñëwee làmb li ma bëgg a def laay def ak adversaire bu mu mën di doon waaw. ñaga jaam moom say mbokk du la ci dugal. non yow man ñaga jaam xoolu moo ko sax si amaana danañ xool ba si kalam lépp lu na leer. waaw fan la da nga koy wax. non ma teg sama bët gars yi xam nañ ko waaw te incha allah dina ñëw parcelle. waaw. da ngay waaw di la delloo bëgg di la jaajëfal. da ngay gem ba léegi. waaw maa de dama am ñu ma dégg ñu ni ñoom moom gem bi. ñan la ñan la ma ko nee na moom. ko fenn. man maay borom gem bi. di leen wax ñuy xool. kan ma wax ko am na ko xaaju ne ma moom géem bi de mais. géemaru géemaru mag bi moom mu ngi nii. waaw kan ma wax loolu. non Ndakaaru benn géemar la am. waaw ki xaaju ne moom géemar kan la. waaw kiñ ne xaw ma aara Ndakaar xaw ma ah, ah, eh, bi kii mooy géemar bi. kooku tamit géemar bu mag la. ah déggoo li la gars yi wax géemar baa ngi ni géemar baa ngi nii. su ma la déggee da ngaa bëgg ne aara Faas ak Talfa non non. lan moo tax lamb dafa am loolu Zargo Zargo Zargo aara Faas dañ ko sóoraale woon ci lamb Zargo aara Faas sóoraale wuñ ko woon nañu waxante dëgg. nag nu mu def stade kii day def lu ko raw lu muy def stade bi kii day def lu ko raw te bu taxawoon bu taxawoon laa la wax si nga si lay doo xam ne moom moomul gem bi. dugal Talfa ci Ada Fass dafa mer. Talfa di xale. ki xale la de ki xamul buy métti ki dof la dof. yaa ngi koy jay de wérul. Ah, xool kii xanaa gisoo yow. man kër ko laa